xawra bu ñuy fas yéene waxtaanee ci walu gënt moy xawra ku goor na <coughs> xawra nag nekk lu sàkkare ci nit ki motax damay faral di wax ne ñi nga xam dañuy solo yenn soli ak di doxé yenn doxé yi ñak xam ndax yalla may sutural doomu adam bi xam awra ni mel ba tax mu def ko fu ruqe su ko ay nit gisé rek na yegg ne boromam sagat na xawra mom nak moy ku goor wala ku jigen yalla laq nako fo xamne yakarna du du bare koy gis ci nit ki du du ko warta gis mo tax dafa nek lu am solo nit su xasse ba mesure wala bu xasse am yenn at yi yaayam man nako baña gisati wala bayam kurut borom kërëm kurut sa soxna yakarna bu ngeen ko xekut man na baña gis awra kon awra nek na lu am solo ci du nit ki awra mom nek nek na lo xamne bu ni wax soxna wala borom kër japp na ne 79 pour cent yëpp euh, bokk na ci wàllu sëy mooy ku góor ki feebarut dara jotu ko ku jigéen gi tamit dara jotu ko bu nuy sëy awra da ci am solo lool sabab yi tax nit ki mën a am doom bokk na ci mooy awraam bi di jug di génn ndox ma mu war a génn mu war na war a mel ba tax bu mu sëyee doom mën a am su fekkee jigéen ki feebarut ku góor ki feebarut kon awra moom su nee ba ko waxtaanee ci gént rek day nekk lu am solo euh, mooy nekk loo xam ne nit ñi dañ koy gént xawra da ngay gént xawra ku góor xawra ku jigéen waaye tom bi di fas yéene waxtaan mooy xawra ku góor bu ci njëkk rekk su fekkee nit ki dafa gént mooy ku góor ki gént na xawraam dagg xawra bu dagg nag danay doon ñaar ba ñett ci ku góor ki benn danay war ak ñàkk goo xam ne dana ko am ci lum nekkoon beneen bi ci toppaat danay wane ne bu fekkente ne wàllu njabootam wane ne ni dana am ak wàññeeku gu ci am wàññeeku ku ci am bi ci desaa tamit bu doon borom wërsëg la war a borom place danay wane ne guddi yooyu la mu amoon ci place mën na koo ñàkk mooy ku góor koo xam ni gént naa war a dagg day tegtale xibaar bu naqari benn ku wàññeeku wala ku feebar wala jafe wala kuy dem ci ak njabootam mooy gént bu góor koo xam ne awraam dagg na bu dee jigéen joo xam nag dafa gént mel ni dafa am awra jigéen gént am awra ñaar la benn àndandoo dana koy def wala ak njambaru jigen dana koy def budé jigen jigéen xamné day gor gor la ci néegu lu borom kërëm def mu def la ci top di taxaw borom këram loolu it tekte la muy gën gént am awray ku gor bu ci desaat benen bi ci topat moy walu andando ci rap lol danay wané ni mën ngaa gént jigen mo am awray ku gor walu andando dana ko def benen bi ci topat moy ku gor ko xamné dafa gis hawram ni mel lol dañay wané né ñaar dana koy waral jikko ju rafet bi nit ñi xam ci yow dila tag dañay waral ngay gënt di gis xawra benen bi ci topat moy jikko ju ñaaw ji nga yor diko jëflanté ak sa ak nit ñi yoy dana war nañu la ci ngaaññi nga gënt di gis xawra kem sa kémt lay kàttan benen bi ci topat moy ko xam ne ku goor la dafa gënt see xawraam goor gu gënt saxra sa xawra nak baxna ci ben anam waaye nag danay wane ni kooku boobaa dana déggal doomam boobaa day wane ni doomam dana ko déggal lool dana déggal doomam bàyyi joo xam ne dana déggal doomam lool sax lu doomam ji wax rek da ciy ànd cent pour cent loolu danay wane ni góor boo xam ne sax nga sa awra ba tey jigéen joo xam ne dafa xam xawra yu góor loolu it danay wane ne jigéen la joo xam ne bu dee ko ëmb la danay wane ni jamono joo ci ëmbam boobu yàlla mën na koo xéewale doom ju góor bi ci des tamit bu fekkee am na doom ju góor bu noppi danay wane ni doomam mën naa nekk boroom cër walla koo xam ne dana jiital lu bari ci askan bi dañ koy bàyyi xel di ko déglu ba tey it góor goo xam ne xawraam daa dagg danay tegteel ak sore ci diggante moom ak njabootam benn dina nekk foo xam ne njabootam duñ ko gis ko dégg waaye laa njabootam nekk foo xam ne du leen gis du leen dégg walla dinay tegtale góor goo xam ne dafa xam xawra eh, ba tey it koo xam ne dangaa gént gis xawra yi xarit wala sa mbokk moo xam ne xam nga ko nga gént gis awra mat ko loolu it danay wane ne aji matt ji awray kooku danay wane ne xaritam boobu moom ku bëgg xaritam boobu la ba noppi ko koy bàyyi xel la ba tey it koo xam ne fu na fekk da ngay gént di am ay xawra yu bari awra yu bari nag bu dee góor la ci góor awr am awray awra yu bari mooy sàkkara yu bari danay wane ne njaboot yàlla dana ko dénk ay njaboot yàlla dana ko dénk njaboot gu góor njaboot gu am njariñ njabot gi nit ñi di bayyi xel bu baax a baax mooy ku góor koo xam ne génn am ay awra yu bari ba tey it ku jigéen koo xam ne dangaa gént di sa yëg sa borom kër ba yëg ne awram dafa dafa mujjee dagg sa biir awra su fekkente nag jigéen ju toll ci ëmb la wala jigéen joo xam ne dafa ëmb jamon jooju dana war ni ne ëmb bi mën naa am appartement mën na ko am ëmb bi mën naa wa ila doom jami am mën naa bañ a bakat ala kulli xaal ba tey it koo xam ne ku góor koo xam ne dafa gént xawraam ñu dagg ko teg ko ci wetam loolu it danay wane ni yàlla mën na ko nattoo mën naa am doom joo xam ne day njaalu doom joo xam ne mën nay def lu jaaduwut wa ilaa mën nay am dugg ci loo xam ne yàlla gërëm ko mooy gént nga dagg sa xawra teg la ba tey it bokk na ci góor goo xam ne dangaa gént sa xawra wàññeeku ba tuuti lool loolu it danay teg tegtale njàqare ak fitna ba tey koo xam ne dangaa gént gis sa sàkkara jug lool sàkkara bu jug lool ci gént baax na danay waral cawarte ak yokkute ak koo xam ne yàlla def na ci moom barke ci wàllu ay mbiram incha allahu rabbi ba tey it xaalin mbokk yi a jël numéro bi 78 443 75 27 bu dee nga xam dañoo bëgg ku leen fil gént wala ku leen defal listixaar incha allahu rabbi listixaar bu leer numéro yi mooy 78 443 75 am nañ fi ay garab nag yu baax loo xam ne aju na ci wàllu hémorroïde wala ndox siti wala new katan ak traitement yo xamne inshallah rabbi hémorroïde lay don bu jigen ño xamne dafa am jafé jafé ci sey ben mën ta fexe ba dugg ci sey wa ila kum waxal mu dem bako wa ila gor go xamne soxna da jafé jafe mën ta fexe ba am dara benen bi ci topat moy ko xamne yalla dogal na nga nek ko xamne da nga am jafé jafe sa soxna wala sa borom kër ngeen am ak rero bëgg déggo incha rabbi am nañ ci ay tegtal yoo am solo yoo xam ne buñ déggoo mën nañ la cee taxaw defal la ci ay ñaan yàlla dina dogal daal réeroo gi amoon sa diggante ak sa borom kër ak jubawaat mën naa am incha allah rabbi kon numéro yi mooy 78 443 75 27 incha allah rabbi kon su fekkente ne eh, ku góor koo xam ne dafa gént xawraam dugg ci biiram loolu nag day tegtale ci aji gént ji ne ku baax la waaye. xamé lé nit lu bax pour seedal ko duko def moy day neubal nit ñi seen lu bax li nga xamné ñu koy def lay tegtal rabbi ba tayit ku goor ko xamné ne daa yëg ne xawraam dugg ci gannaaw fi muy loli nak da nay wané né bu dé ku soxnam tol digënté soxnam sa tol digënté lam ëmb mën na yaq wa ila mën na baña a judduwaale doom ala kulli hal ba tayit ku jigen ko xamné dangaa gént am ñaari awra yu awra yu ku góor loolu nag day tegtale ak njàmbaar ci ku góor ki te day wane ne yàlla mën naa def ci moom njaboot gu ñaari njaboot yu góor yoo xam ne dañu am barke dañu am njëriñ ala kulli xaalin ba tey it gént sa xawra yu jug loolu yokk awra bu rëy loolu it baax na ci aji gént ji ndax day tegtale ci aji gént ci wërsëgu yaatu dana koy doon bisaat dinay doon barke ak njaboot ak njëriñ ko xam neng da ngaa gënt sa awro dag. bu dee ko yoron place la tek tegtale place bi li nga ci amone mën nga ko ñak bu kilifa mu ay nit gënt sa awra dagg loolu tek tegtale ndomba tank yi ko bu dee ko xam nak dafa tawat mën na fi gënt awram dag wala wañé ko neng nak day wone ci aji tawat ji ni ala kulli halin. tawat ji man na ci jaare ak fa ak fatu moy dal tawatam juga. man na ci baña jaare ala kulli halin motax côté mom. nekkut loo xam ne gën na ci koo xam ne dangaa gént sa xawra deme nii ba bokk na ci gént xawra gént gis awra yu bari awra nit ñu baree bari loolu nag danay wane ne nit koo xam ne aajowoo na ndimbal bu baax wala nit koo xam ne day bàyyi xel nit ñi ci ay mbiram bu baax lu muy dugg li muy nekk danay wane ne mu ngi ciy bàyyi xel nit ñi incha allahu rabbi ba bokk na ci xeetu gént yi tegtale awra ju baax mooy gént gis sa awra yokk baax loolu it awra lay tegtale yokkute yokkute ci wàllu nit ki lay tegtale ba tey it gént sa xawra dagg lool nga di ko naqarlu loolu jafe-jafe la xat-xat la gàllankoor la ci aji gént ji incha allahu rabbi ba tey it bokk na ji gént gis sa awray morom loolu suutura lay doon sa diggante ak moom wa ilaa sa mbokk mi nga gis awraam kese loolu day tegtale am na sa kersa bu baax wala ku lay baye xel lay doon inshallah rabbi si sa ay mbiram inshallah kon eh, su fekkente ne nag ku jigen ko xamne da daa am awra yu bari loolu ñaar na koy waral da na koy def rap budé ku gor ko xamne nak dafa gént am awra gor ba nopi sey keneen ku gor loolu rap da na koy def da nay def loolu batay ku góor koo xam ne dafa amoon awra yu bari ci gént gi mu jékki-jékki yëg ni awra yaa ngi wàññeeku loolu it dañ koy xamal ni bu dee am nag njaboot njaboot yi mën nañoo dem ba jeex moom fekk mu ngi dund day tegtal njaboot goo xam ne ak faatu dina leen dikkal incha allahu rabbi kon gént awra lu am solo la ba tey it gént awra bu wàññeeku ci ñenn ñi danay wane ne nit ku sore ak njabootam ba du am si ñoom xibaar waaye bu doon ku nekk ci ay xat-xat wala jafe-jafe ci wàllu liggéeyam gént Abraham wàññeeku noonu ci ñenn ñi nay tegtal lim ñàkkoon ku si néew mën na cee jotaat bay laa li muy wut mën na ci amaat ci beneen anam boo xam ne dana faw ko njortam nay tegtal yokkute même gént ñu jox la awray jàmbur tamit danay tegtale alal bi ci lisaat tamit danay doon am-am boo xam ne mën naa bàyyi ko ci miraas mooy gént ñu jox la awray nit ba tey ku jigéen koo xam ne daa gént ay awra yu góor yu bari yuñ teg ci barab loolu nag danay wane ni ku jigéen kooku boroomu cër la yàlla mën naa def ci moom leer yàlla mën naa def ci moom barke ak njaboot goo xam ne njaboot bu nit ñi di dégg lañuy doon njaboot goo xam ne borom yu cër lañuy doon ku jigéen ko am awra yi góor ba noppi mu dagg loolu it tey tegtale dana ñàkk lu bari loo xam ne pour mu jotaat dana jafe benn dana ñàkk boroom këram dana koy tegtale bu doon ko am doom la danay wane ni doom jooju mën naa wàññeeku ala kulli moo tax côté yooyu loolu lay tegtali kon lii gént la gu am solo gu mat a bàyyi xel mooy gént gis awra yu nit way laa nga gént gis sa awra kon awra nit ki da koy gént ci anam bu nekk nag la koy nit ki di géntee waaye ci anam yeneen yi lay tegtaloo kon gént awra ci ñenn ñi nii lañ ko tegtalee ci borom xam-xam yi am na ci côté yoo xam ne baax na am na ci côté yoo xam ne yokkute lay tegtale ci aji gént ñi waaye am na ci teg kana yoo xam ne danay waral ay xat-xat wala jafe-jafe surtout ma awra bu dagg moom saa bu ko nit ki géntee wala gént ñu xarafal ko loolu na séentu ak wàññeeku benn ci ak njabootam yooyu daa ko ko jege wala dana so rek ay nit ñu ay mbokkam wala ay njabootam yoo xam ne pour ñu dégg ko wala pour ñu gis ko dana jafe mooy awra bu dagg awra bu dagg ak ñàkk lay teg tegtale bu doon place booy dugg gént bu doon da ngay listixaar place gént sa awra dag mom dañ lay xamal ni place bi jafé jafé la galankor la khat khat la yo xam bo ci duggé la ngay bëgg dëgg-dëgg man nga ko bañam bu doon ab sayal tamit nga gént dugg ci ngay li saxaar gént dugg ci sa awra dag wala sa awra ko ba jeex tak lol day wané ni sëy bo boo bo ci duggé man nga ci bëré ay jafé jafé ak ay galankor kon ala kulli halin eh, tektal bi lañ indi won tay ci gënt awra ak ku nekk nim lay garé ni nga xam nan lay ñëwé ci nit ki allah rabbi kon ñu ngi ñaan yàlla defal ñu tawféex bu baax baax yàlla defal leen ko ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel kàddu gi fon mantikaa nekk di wax yàlla yàlla yokk xéewali yàlla yàlla defal ñu jàmm di wax a uridu illa al islaaha mastataatum wa ma tawfiqi iya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilay unit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala